moo di seen cas ñoom aussi nan nga mën jàngatee li nga xam ne nag moo di ñu leen épinglé. waaw xam nga Abdoulaye Daouda Diallo et je pense que jamono jooju euh, ministère te diggante fii ak Macky Sall je pense que ministère des finance soppi nañ ko ñetti yoon. Mhm. parce que am na plan am na budget euh, jamono bi dégg naa planification xaw ma budgétaire lañ ko tuddee mhm. jamono jooyu nee naa la tout ministère. Mhm. quelque que soit loo doon. yow di nga soxla ministère des finances. Uh-huh. parce que ministère des finances moom moo yore lu ñu tuddee euh, grenier mooy l'argentier de l'État. Uh-huh. moom moo yore xaalis bi entreprise li ñuy fay taxi, yi foofu lañ koy dugal. Uh-huh. lu ñuy leb bu ñu koy jox foofu lañ koy dugal donc moom mooy xool li fa ne xam na ñaata moo am ci budget état. ñaata moo am ci ci ci compte trésor ñaata la xam na ñaata état au Sénégal am ci disponibilité bu amee déficit xam ko bu amna bu amé tension de trésorerie mhm. ministre bi xam ko kon képp ko xamante ni ministre nga mom sa compte ministère mom moy joxé ordre ñu virer la sa xaalis bi ngay gérer say affaire mhm. say mode de fonctionnement wala say investissement légui bu fekkente ne nañ kooku motax des fois politique fofu la grave parce que boudé yow direct yow yow mi soxla ministre bi yéen ñaar jubóo leen. Mhm. da lay chantage politiquement. parce que tay bo xolé Abdoulaye Daouda Diallo ak maître Moussa Diop même si di nga ne politiquement mënuñu jege woo mais maître Moussa Diop il est de de Fouta. Mhm. Abdoulaye Daouda Diallo il est de foot, Abdoulaye Daouda Diallo mon nekkoon ministre jamono jooju budget. Mhm. budget budget budgétiser li ñu le budget prévisionnel de l'état du Sénégal nga sóoraale ci tous les ministères ñoom ñoy liggéey ñoom ñooy liggéey li ñu le budget prévisionnel annuel. Mhm. ñoom ñoo koy budgétiser à travers les techniciens wa légui budé état yore nga ko un un montant de 1 milliard et quelque. Mhm. légui ki nga xamante mom moy mooy joxe autorisation pour ñu fay la mom bu jàppee né yow mëna la coincé te nee na fii laa doon xaaree koñ bi egsi nga fii laa doon xaaree. Mhm. donc mëna profiter ci occasion bobu légui nak ce qui est dangereux, c'est qu'on ne peut pas utiliser des instruments de l'État pour faire ce qu'on appelle des moyens de chantage. Mm-hmm. Parce que vous n'avez pas été élu, parce que vous êtes euh, un politicien, quoi, vous pour soldat et contre. Mm-hmm. Vous avez été élu, je pense, et nommé, parce que, qui l'a nommé à table, il y a un carnet, il y a un carnet, il y a un carnet, il y a un alors kaaw Pape Malick Dour, moom aussi daanaka euh, nu ko épinglé ci mbir mi jaaxal sénégalais yu bëri euh, ci li nga xam nag moo di indemnisation ak salaire bi nga xam ni euh, mi ngi ko am moom aussi jamono jooju bokk ci li nga xam nag mooy dossier Prodac bi Danaka sax ñu ci bëri Mame Mbaye Niang ñu yaakaaroon moom moo laalee ci mbir moomu. waaw xam nga man man vraiment j'ai j'ai pas envie de <laughs> su ma déggee kooku waaju waajooju man. <laughs> bëgguma am problème ak moom quoi mais kan ci Mame Boye Niang wala Pape Malick Ndour Pape Malick Ndour vraiment euh, je le respecte beaucoup mais non j'ai pas aimé ce qu'il ce qu'il a li ñu ko bindal quoi. Mhm. nana la 5 te moom après dafa bind tontu na. Mhm, tontu na tontu na mais tontu bi vraiment euh, du loolu quoi du loolu. Mhm. parce que nee naa la dara dina dagan. dina dina dagan mooy waxuma la dafa dina dagan ci kanamu yàlla wala nit wala affaire de moral maanaam mhm. di ko wax di ko tënk ci ci loi mhm. parce que loi il faut ñu xam ne loi du sharia loi du ay nit ñu julit ay ay pas julit mais du ay imam ñoo taxaw ne loi bii nii la ñu mhm. teg ko ci benn téere ay nit ñooy taxaw dem assemblée def projet de loi wala proposition de loi wala ñu def conseil d'administration ñu décider ñu ne. Mhm. le conseil a décidé en unanimité wala majoritairement li lañuy ñuy def loolu ñuy def mën na bañ a nekk loo xamante ni lu intérêt sénégalais yi la. Mhm. léegi comment tu peux comprendre le cas de ma de Pamali Ndour. Mhm. Pape Ndour moo nekkoon coordonnateur bu bu bu bu product Baye ma wax la bàyyi ma la nee na.

fay na ay fay nañ leen ay indemnité nee naa la indemnité du salaire. Uh-huh. indemnité mooy par exemple mën nga dem voyage ñu fay la mooy indemnité de kilométrage xaw ma lan. Uh-huh. wala nga dem nga dem euh, li ñu tuddee benn rencontre séminaire ñu fay la loolu ay indemnité la. Uh-huh. wala nga dem dem ñu yónni la benn mission euh, France nga dem ñu fay la loolu mooy indemnité léegi mu ne am na ci ay agent yoo xamante ni fay nañ leen ay indemnité rapport bi ne. il s'agit entre autres des coordonnateurs ay coordonnateurs et du spécialiste en passation des marchés et approvisionnement qui perçoivent en plus de leur salaire une indemnité mensuelle de 500 000 francs CFA tel que le montre le tableau ci après Nous ñooñu directeur ay coordinateur du product, du product ak kenn en passation des marchés Nous sommes ñooñu ngi salaire

5 millions de francs CFA en 12 en 17 mois 17 mois. 500 ñu jox 8 millions 750 000 francs CFA le du salaire indemnité. très bien. Pape Malindour, mm-hmm. coordinateur 5 millions salaire mensuel product 5 millions mm-hmm. salaire mensuel 5 millions indemnité 500 000. 15 millions 250 000 francs CFA. très bien Ibrahim Sissoko. Mhm. SPMA mon salaire bi 2 millions là. kooku spécialiste bi. Mhm. en passation des marchés spécialiste spécialiste salaire 2 millions là. indemnité 500 000. mon petit 24 millions ci at bi. Mhm. rapport bi 48 millions de francs CFA ci ay salaire ay indemnité waa léegi vingt neuf milliards yooyu. Uh-huh. sa xam nga vingt neuf milliards yi bokk na si gars yi lu ñuy def nii. léegi yow lii nee nañ dafa daggan. Uh-huh. parce que mu nee na jusqu'à l'extinction du soleil du ñu mës gis benn centime boo xamante ni dañ daf ko am lewul. Uh-huh. parce que quand on vous du légal mooy lu ñu def nii. loi bi permettre na leen ko. waaye léegi bu leen ko loi am na loi mën na la dara te loolu mais quand du du du jekk du rafet. rafetul sax du rafet du rafet. yow nee nga indemnité. indemnité, c'est 5, chaque mois, mhm. c'est 500 000. 500 000 bobu, beaucoup salaire. Alors que ce salaire, en tout cas pas mal salaire, mhm. c'est 5 millions. 5 millions. Mhm. ça veut dire que chaque mois, am 5 millions 500 000. C'est salaire. je ne Je parle pas des privilèges, parce que auto, c'est la banque. Mm -hmm. Digam auto. essence. également, euh, logement euh, mhm. de fonction nga am ko donc loolu yëpp boo ko dajalee mhm. ñaar ak li ñu tuddee crédit ligne téléphonique ngay wootee loolu yëpp bokk boolewuñ ko ci te loolu mhm. am na si kon loolu di nga gis donc benn nit boo xamante ni benn ci directeur général mu ngi coûter l'État du Sénégal dix millions par mois par an par mois bëri na si ñoo xamante ni dañuy coûter dix millions par mois benn nit benn nit boobu ba moytu sax du liggéeyal dara loo xamante ni jar nañu fay ko 10 millions. Uh-huh. léegi lii nii indemnité yi. Uh-huh. dañ ko war a dindi sëriñ bi. Ah, vraiment ay tapale la sëriñ bi non lay dañ lay dañ. 5 millions ñu fay la ko salaire doyul la. Uh-huh. ñu fay la indemnité 500 000 du indemnité de logement du prime du dara. parce que dañ lay jox ba moytu logement. ñi xam nu muy demee xam nañ directeur yi yenn yi am nañ logement yenn yaay préféré lu ñu la war a fay ci logement bi boo amee kër nga ne ko léegi bu leen ko dugal ci logement bi léegi dugal leen ko sama salaire parce que am naa kër wala léegi aw kër am naa appartement léegi gars baa ma jël benn appartement vide nangam après chaque mois ñu fay la nga dem fay sa sa appay mais noonu lay demee waaw léegi du tax ñu war a fay ay nit 5 millions jox leen ay jox leen ay ligne jox ay carburant mais hein? c'est dommage non c'est, non c'est kay du Avance. du ils sont ils sont trop gourmands. Hein. ah wax de alors ils sont trop gourmands il faut que nous nous avancions vous euh, rapport vous vous mu <laughs> différent alors Je actualité vous di Je vous gis vous ki nga euh, euh, professeur. Eh, Momadou Lamine Sar nek professeur fele ci université Amadou Kane mom nak japp nañ ciow li nga xamni mom mo am ci Sahel bi ak eh, coup d'état yi nga xam tay ji bari na lol ci biir CDAO bokk na ci fele ci Burkina Faso Mali ak li nga xamni nak modi Niger eh, mom nak neena ki di président Bassirou Diomaye Faye meun na nek li nga xamni nak modi intermédiaire bi